ñëwaatee si jaloog bi nee nga président dafa yaatu dënn moo tax mu wootee que dafa am sincérité loolu moom xanaa c'est président new look la ñuy jàpp ne mooy sincère ci dialogue parce que gis nañu dialogue yi ñu fi jot a woote ci lan la débouché ay deal ak ay compromission léegi euh, pourquoi ñun ci moment bi c'est pas fortuit mu lancé dialogue après que F24 dañ ko samp ñu dëgmal ab manifestation le 12 mu woote dialogue ci diggante bi waaw euh, dialogue xaw ma noo ko waxee new deal xaw ma la yow donc dialogue non new look président new look waaw yow yow yow le processus de dialogue dans la République du Sénégal yow yaa ngi de de la mandature de Macky Sall depuis 2012 non man damay transcender loolu. non man damay juger. ci yim fi jot a def parce que yim initié ci yooyu lañ mën a juger ci dialogue yi yeneen régime yi fi jóge gestion république continuité dagg lépp ñëw teg ko donc man j'ai été que j'ai dit dama ni ci processus dialogue yi Sénégal mës a am lépp. lépp lu ñu fi am ci système électoral boo xamante ni nekk na satisfaction ba àdduna dina ko taggee. ci mais consensus fort la génn mm. maintenant su Macky Sall processus de consensus boobu. mën nañ ko tudd su Abdou Diouf. avec le avec le code Kéba Mbaye. mais dama lay jox benn point le code consensuel de 92. oui indi ay résultats. non su Wade les résultats sont là su mm. Macky ani résultat yi. su Macky Sall ma jox la benn. dem leen dialogué waaye pour démonter li nga euh, pour démonter li nga mais leen dialogué Aïssata Tall ñëw. dem leen dialogué. Euh, Karim Wade génn ci kaso bi génn parce que. dem leen dialogué Oumar Sarr ñëw fekk si ko dem leen dialogué dem leen discuter 25 points après ngeen ñëw le dernier mot ma revient. Mm. loolu la ñu gis ci dialogue bi ñu fekkee. Mm-hmm. mu mujj te mu am tuuti loo xamante ne sax dañu naan jàll na ci. donc en comparant le processus vous pouvez pas dire que c'est sous Macky Sall ñu am un consensus fort. j'ai pas dit ça je n'ai jamais dit que c'est sous Macky Sall qu'on a consensus. da nga fi wax ay consensus consensus. oui dama ni dans l'histoire politique du Sénégal waxtaan ak diisoo moo ñu may lépp lu ñu am ci processus électoral boo xamante ni nit ñi rafetlu nañ ko. de 1960 à maintenant loolu c'est indéniable kenn du ko dindi. Mm. maintenant pour revenir à la à la mandature du président Macky mais yow euh, lan moo indi tey l'élection des maires au suffrage universel direct. du ko du du du du dialogue moo ko indi du diisoo. ne me dis pas que on a rien fait su Macky ça c'est être dans un nihilisme. non non non on l'a jamais dit ñun dañu man dama énumérer fait yi fi jot a am après les dialogues. soo xam nga débat bi du ma ak yow. boo ma bàyyiwul ma wax du sotti. <laughs> ndeysaan donc boo ma bàyyiwul ma wax du sotti parce que du man ak yow da ngay bàyyi ma wax ak sénégalais yi ñu comprendre li may wax da ngeen da ngeen expliquer nii yow da nga yow da nga xool ci processus su dialogue bi. li nga xamante ne moo la ci moo la ci néexoon nga génne ko teg ko ci table waaye mais yow li nga gis li nga gis man gisuma loolu man leneen laa gis mais li ma gis bàyyil ma wax ko ndax dama bàyyi la wax la li na ci yow loolu sa sañ-sañ la comme démocratie bi ma am mhm. ak mat gi ma am ak dal ba bàyyi la nga wax ko bàyyi ma man ma wax li ma li na ci mat dama ni dama la ci jox benn point rek bu montrer que ni ci ci ci ci magistèru Macky Sall am na loo xamante avancé avancée démocratique la dama ni la les maires yi nga xamante ne dañuy dem ba di leen tànn au suffrage universel direct loolu loo bañ bañ bañ Macky Sall nangul ni ci magistère am la amee c'est indéniable kenn du ko dindi léegi nag ñi ngay wax ni dañoo dem dialogue dugg ci Macky danga leen di laaj ñoom lan moo tax ñu dugg dinañ la jox la réponse mm-hmm. mais si tant est que ils ont trouvé que ni lépp li ñu doon toppee Macky Sall wala di ko bañ ils ont fini par avoir le cœur loolu amul mais boo waxee sincérité man dama ciy douter ndax sincérité dialogue bu fekkoon ne wér na te wóor suñu defee dialogue ba noppi jël ay point tënk ko mu am ay point d'achoppement yenn yi pouvoir ak opposition ci moom mu dem tranché jëmee jëmee ci li nga xam ne pouvoir loolu la bëggoon absolument parce que nekkuñu ci monarchie on dans une république moom la ñu dénk il y a deux choses yàlla a dialogue après le dialogue y a les de décision su suñu dialogué ci ay points ba noppi ba d'accord dañuy xool ci consensus yi nga xamante ne ànd nañ ci ñu ne lii la consensus yi ñu àndul il appartient au président de la République de de trancher parce que nag soit c'est lui qui rendra compte du waa oppo ñu ne ci dialogue bi yëpp ay ñooy ñooy ñooy décider c'est lui et monsieur Dias y a le temps du dialogue y temps de la prise de responsabilité et de décision c'est ça la on a eu des consensus arrivé à un moment où le président de la République devait prendre les décisions mais il a pris les décisions qui sillaient et décision yooyu noonu moo ñu may tey jii mais mais attendez mais c'est après même que ces dialogues là ñu am et tout mais l'opposition a gagné tête quasiment les grandes capitales régionales loolu loolu su fekkoon ne amuñu mais je je termine non attendez dama ni c'est-à-dire que il faut pas scier le banc sur lequel on est assis xam nga nit gis nga nit ki. faut pas faut pas que faut pas que ñu nekk faut pas que ñu nekk. et puis seen victoire boobu jox leen leen comme cadeau c'était pas un cadeau hein ils l'ont eu d'arrache-pied. mais nañu nangu ni kon le système là il est bon système bi système bi tax loolu loolu loolu loolu arrivé ba ñoom ñu mën a am loolu c'est un système boo xamante ne dañ ko war a rafetlu maintenant le président de la République dans la dans le prolongement de ces initiatives. dans le prolongement de ces initiatives, a pris la décision de parfaire encore ce système. D'où la nécessité de dialoguer, d'où la nécessité, dans la nécessité de se mettre autour d'une table pour aboutir encore à des consensus beaucoup plus importants. Gage de rendre le jeu politique plus inclusif et plus transparent. ma ñëwaat encore sur le cas de Ngor. vous savez. nga may ma ci deux minutes rek ma expliqué. l'honorable député waaw xam nga waaw une minute l'honorable député rek ma c'est des astres de la désinformation et de la manipulation. ils ont voulu. ils ont voulu. non non non doucement man mu la bàyyi nga jàll. ils ont voulu. non non non amul temps de parole. arrangé rek soo paree honorable bi. waxuma la dara jaas. mais man faut prendre après je fais je fais une information je donne une information du ma mais man tudduma la. non duma la dama ne ñoom non kon waaw waaw waaw nga jégal ma waaw dama ne waaw waaw kon nga waaw waa kon mais kon da da. fexeel ba duma la wax fexeel ba fexeel ba man duma tudd Pastef ma ne duma tudd Ah, si le Pastef c'est c'est ta propriété euh, tu parles de Benno Bokk quand tu veux tu, as parlé de ce que tu as voulu tu voulu dire mais je ne t'ai coupé la parole sois élégant objective mais honorable et non subjective honorable s'il vous plaît vous prenez note après di nga ko tontu allez si Diassi di nga ko tontu vous prenez note alors ah, ah. je reviens à ce que je disais dama ni la tendance de la la tendance chez Sonko la tendance à l'accusation gratuite et pathologique C'est ça la vérité et je l'assume. Sur Ngor, moi j'étais j'étais choqué mm-hmm. quand j'ai entendu monsieur Sonko vouloir jël affaire Ngor bi ñëw dandale koog li xew. mais seen interprétation. waaw non non non dama ko déglu waaw mais sëriñ bi dama ko déglu. dama ko déglu waa Ngor dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo seen tur ay bañkat lañu. mais la moo xew Ngor. keneen ñi de quoi sagit mm-hmm. problème boo xamante ne sur un foncier la entre Ngor ak l'État du Sénégal plus précisément la gendarmerie nationale. Mm-hmm. mais le président de la République conscient que son rôle c'est de fédérer les énergies d'apaiser comme moom ni mu ko waxee fii bu ko jiite woon xam nga loolu aussi yàq la quoi nit da ngay wax lu rafet. mais après que le sang mais bi nga la la daanoo. xam nga ko expliqué ma feey. yow it leeru la de. déedéet moom moo ko wax. leer na ma <laughs> dama ni non non y a des dires yu fa am. c'est pas euh, euh, non non non monsieur c'est grave si vous minimisez aujourd'hui j'ai pas minimisé blessé non loolu naan li nga ne. mais Fatou Abdou bul ma wax loolu ma waxul. mais parce que loolu lan laa wax. vous avez interprété tout à l'heure qu'est-ce que j'ai interprété. en quoi disons tout à l'heure yaa ngi wax li nga xamante ne moom moo fa am nga jàpp ne dara du fa xew. non non non non je n'ai jamais dara du xaw ma dara dara du yëngu non dara du yëngu. non non non dara du yëngu non peu importe. non non non non non non non je te laisse non non j'ai beaucoup de respect ne me laisse non non non ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dit dama ni ñoom seen intention. moo doon ñu ne fa di reyante mais coow du jibbal du tàkk dara du fa am calme plat calme plat mais dama ne deret tuuru na man mais nous regrettons tous bakkan rot tout le monde le regrette tout le monde le regrette di nga ñu déglu parce que vous ne dirigez pas le débat. dirige non, pas c'est temps de parole. yow yaa dugg sama temps de parole bëgguma bàyyi ma wax soo ma bàyyi woon ba léegi noppi na. cest kon yow xamoon ni débat di dox. Ah, man xawma débat yow yaa xam jëlal. waaw bien sûr yaa dugg sama temps de parole alors que dañu lay laaj. non parce que dama war a relancer mais waroo coupé. non non hmm. parce que yaa ngi wax ne ki dee deewul amaana euh, leeruñu ndax condition yi mu dee mais na la si aujourd'hui des ngi jàkkaarloo ak takk ba le président de la République convoque une réunion c'est du sérieux ça. je peux parler. loin de question l'idée de minimiser. Mm. je suis un Sénégalais je suis jeune. mënuma mënuma am boobu boobu boobu boobu posture non jamais. li ma wax c'est très clair dama ci bëgg-bëgg ñoom waa PASTEF dans dans dans dans le dans le message de monsieur Ousmane Sonko que j'ai écouté religieusement hier faisant appel à la résistance dem na bay wax ni bu quartier Dakar yépp meloon ni Ngor. gendarme yi depuis avant tabaski pour quartier Ngor bu ko quartier yëpp defoon Macky abal ñu mais sëriñ euh, si loolu lu muy niroon. Mhm. ñu ne kenn du wax loolu. Mhm. Ah mais attendez. depuis quand dans ce on veut interdire aux gens de dire réellement. ce qu'ils il faut s'indigner pour autant vous vous sur ce que j'ai dit en amont vous sur le que monsieur Sonko dit. alors su quartier yëpp meloon noonu tey jii Macky ne passerait pas la nuit au palais. je et dernièrement bi may mujjee waxee je sais pas si de si c'est de l'inculte ou pas mais j'ai été choqué hier quand j'ai entendu monsieur Sonko dire tout le temps dans la manipulation que euh, colonisation traite négrière on nous l'a donné sur un plateau d'argent tout ce que nos ancêtres ont, eu à comme bataille pour avoir ces trucs-là on veut passer tout ça en fait au profit pour dire que lépp lu ñu mës am ay bataille mais j'étais choqué très choqué se se se joindre à moi. alors et vous indigner par rapport à ces propos grossiers pour défendre quoi que ce soit maintenant pour ñëw ci loolu euh, revenir un peu en arrière procès bi jàll na pour le moment Ousmane Sonko inéligible ci li nga xam ne moom moo tukkee ci cour d'appel inéligible pour le moment maanaam pour mu dem euh, bokk ci élection yi ci cour d'appel bu ñu ci yamee euh, mënul nekk xanaa ñu dem cour suprême ak ak lu ci topp avant Ousmane Sonko c'était Khalifa Sall après c'est Karim Wade Khalifa Sall aujourd'hui Ousmane Sonko sànq yaa ngi bàkku consensus fort boo xam ne am nañu ko de 1960 à aujourd'hui est-ce que dans une démocratie war nañu yegg ci nit bëgg a bokk élection ñu di ko ko xañ et souvent li jógee ci opposition mooy euh, souvent on utilise la justice pour éliminer des adversaires politiques. Fatou Abdou vous vous devez xam nga xam nga tu sais euh, euh, vous devez vous n'êtes pas sans savoir que l'inéligibilité ne date pas d'aujourd'hui dans les lois sénégalaises c'est depuis Senghor lan la def ba dugg ci loolu c'est ça c'est ça l'élément central. mais sous Macky Sall on élimine des adversaires politiques à travers la justice. ah dañu ne fekk seen kaw lal éliminer leen noonu mais non oh c'est-à-dire c'est ça le problème c'est-à-dire que on met pas les formes dans ce qu'on dit. de surcroît de potentiel candidat ah, potentiel mais mm. vous voulez dire tout simplement en tout ce qui est tombé sur monsieur Sonko. c'est parce que dañ ko bëgg interdire mu dem élection. c'est ça là c'est ça boobu moom ngeen bëgg a wax ma tontu leen ci. n'est pas candidat qui monsieur monsieur Sonko monsieur non non non mais attends <laughs> xam nga affaire bi mooy monsieur Sonko kenn fekk ko lalam mu tëdd nelaw ñu ñu ko inéligible. ñu condamné waaw la li fi li fi xew. mais parce que waxoo leen ko parce que da ko occulté moo tax ma bëgg ko leeral. c'est-à-dire xool lu la ci neex nga joxe ko du demee noonu gis nga man xalal yow ak. Euh, Ndeye Fatou Ndeye Fatou mën naa leen dékku. ñaari Fatou Ndiaye yéen ñaar yëpp laay boole dékku leen lu ngeen wax ma jël. danaa ko dékku ma lépp ba mu leer dama ni. dama ni yàgg de te leeral la ko loolu problème bi. waaw kay la vétéran la waaw dama ni pour mu leer en terme très clair. oui monsieur Sonko. Mhm. dossier privé la am ñaari dossier privé. Mhm. monsieur Sonko yow yëkkati woo ko këram ci période Covid di ko yóbbu si seen nañ waxante dëgg moo fa demal boppam la fa xew xew fa ndaw si porté ko plainte la cay xew xew fa justice doxal man bokkuma ci justice je ne suis pas dans le pouvoir d'état damay maandu ci loolu parce que c'est un dossier pendant en justice dañ ko lijjatee beneen bi mooy Mame mbay Niang mais tout le monde a entendu monsieur Sonko dire que le rapport est là moo ko yore dif wax ko lu nga xam ne c'est un citoyen sénégalais Mame Mbaye il a le droit s'il se sent diffamé d'aller en justice mais c'est à Mame d'apprécier <laughs> c'est à Mame d'apprécier Mame c'est à Mame d'apprécier moom mooy apprécier est-ce que li ko justice jox doy na ko wala doyu ko il s'est avéré que li ko justice jox doyu ko il est allé en seconde instance mais non non Boubacar Boubacar mm. ni moom mooy li ko joxoon laabe nañ mais Boubacar à lui suñu xel parce que waxuñu kaa Sonko kese dañu wax kaa Khalifa wax kaa Karim Wade ñoo ñëpp ay potentiel adversaire lañ woon kaa Khalifa lu ci xew kaa wax ko ñu débattre man maay poser question. yow